a tiimal waaye wala jumaatin du mën tiimal juma ku nga xam ne dafa teew te wér mënta tiimal juma doo tiimal juma nag lam ca namu yaa ngi nii yaa ngi teew wér nga xam nga ndox waaye da nga dégg juma ja taxawal nga ne su ma fi nekkee di jàpp bala ma pare juma ja sëlmal te kon jumaa dana ma faat su boobaa borom lax dëri nee na rek bu paree bu juma ja faatee nga julitu su baax loolu sax ci la seex na tijaani ak borom xam-xam yu bari d'accord waaye nag doo wax ne tiima gën a gaaw njàpp nga baxi fi ndox mile jàllar bi ku dem di tiimi ngir mën a dem ca jumaa ja mën a dab rakkaab jumaa ja loolu lépp nag seen xuute gi ñaara tax dafa am ñu ne jumaa mooy farata ci bis ba bisu àjjuma ba tax na loo julli lu dul jumaa tamit taxul nga xam ko ñooñu dañoo jàpp ne tusubaar sax boo ko jullee taxul nga xam ko ndax bis ba jumaa mooy farata ñenn ñi ne déedéet jumaa nag dafa ñëw rek ngir remplacer tusubaar ba tax na soo waroon na julli tusubaar soo waroon a julli jumaa bu la faatee man ngaa julli tusubaar te booba dana wér ndax kat yonentu bi yàgg na fi julli te tusubaar rek la doon julli lam nekk màkk yépp tusubaar la doon julli ba mu ñëwee ma diina ci yoon wi ci lañ farataal ci moom jumaa kon jumaa dafa dafa ñëw huutu tusubaar ñi wax loola nag kon moo waral ñu ne loo am am ndox man koo jëfandikoo doonte le waxtu wa dafay faat jumaa ja jàppal bu paasee nga jullee ko tusubaar ñi wax ne nag bis ba kat suba rek du sa farata waaye jumaa rek cay farata ñoom dañ ne bàyyi fan ndox ma nga dem tiimi dem fexe ba dabi jumaa ja naka noonu wala janaasatin du mën a julil néew koo xam ne dafa dafa dafay tiim mënta julil néew ku teew te wér nii mënta tiim tiimal néew faw mu ne illa isa taayanat ndare ba ràññee ko àllee ci moom al janaasatu néew ba ah, ni taayanat nag mooy rek li Cheikh Khalil wax mooy illam yu jot xayruhu mooy ña fa nekk ñëpp yow kenn yaa fa mën a jullee néew yow kenn rek yaa ko man su boobaa te yow da ngaa amee ngantal jàpp kon soppeeku na farata ci yow su boobaa nag kon tiimal nga jiite néew ba waaye su fekkee ñeneen nang fa am njàpp mën a jiite néew ba kon yow sax bul bokk ci jullee ga bahil ñi am njàpp ñoom ñu jullee néew ba kon nag ki teew te wér mënta tiimal naafila ki teew te wér mënta tiimal jumaa waaye nga déggee ci na ki nga xam ne dafa feebar wala moom sax mi ngi teew mais amul ndox moom moo xam ne moom la mën a jëfandikoo wala xam na ndox sax waaye dafa ragal ne bu ko jëfandikoo jëlee ki susug feebar mbaa dolee ko feebar mbaa yéex a wér kooku moom ittifaqan mën naa tiim mu julli jumaa dara ñëwut ca waaye nag ki teew ta wér tamit manta maanaam jullee néew lu dul mu nekk néew bu ràññeeku ci moom te mooy ña fa nekk ñëpp moom kenn moo fa mën a jullee néew su boobaa mën naa tiim mu jiite néew ba su fekkee ñeneen nang fa ñu mën a jiite néew xam njàpp ne leen bàyyi ñooñe ñu jullee néew ba te moom maanaam mu ñaanal néew ba rek yàlla ta bañ a bokk ci ña koy jullee lool daal mooy xatte yi nga xam ne moom la borom Axdari yi wax